kii moo bëggee. waxaan dama saa kii dama koy yee amul risque sa life déedéet non non non paa bi boobu ba léegi bàyyiwul boobu ba léegi dem nga police fu ne dugg nga bu ko yee bu ko yee ñaan naa ñaan naa non yow. ñaata la ñaari junni laa joxoon ak ñaari junni ngeen jëloon ci man. daa mayu ñaari. wax dëgg yàlla man mënu ma ci may dërëm. Hmm. man bu ngeen ma joxoon sama xaalis ma bàyyi ko waaye sama moom di ngeen ma ko jox wala mu tudd dinaa ko. mais Kayita moo moom ñu moom ñu moom lañ ko fa rek. waaw non affaire dëgg la affaire jigéen la waaye léegi joxoon joxoon ñun jëm. waaye bu subaa ñu lekk leen bu subaa waxoon bu subaa ñëw fi ñu lekk leen. ñëwaat si moom xaroo ko gën. yow nii tàng nee na nii nga ñëw yor naa heure bi heure bi nga tànn nga tànn génn koy faj. heure de kii mais fii suñu la waxoo waa ko njëb ñëw wala na laa yore ñu xool waa ko njëb ñëw. waaye ci ngeen. waaye tey yow yaa sàcc yow lañ jàpp xam nañ suñu waaye tey yow lañ jàpp yow bii lañ jàpp tey ngay sàcc suñu biir kër déedéet yow da ngay sàcc su yuuxu boo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 59 75. Notre site internet www.cefas-sénégal.com. donc bu boo fa bu ci naree am. boo fa la yeete waaye bu fekkee mag waa koñ bi rek. bi mais suñu yuuxu boo faa njëkk yow. waaw boo fa la moom yow xamal la keroog li ma daj ci rek doy na. ba ñëw di sàcc heure bii. bu subaa dégg may ñaari junni bu subaa man ñaan leen. ñaari junni ma cee maye dërëm. waa léegi dama bu subaa ñu leen. voilà. waa léegi maanaam ñeenti junni yu manqué ñaar dërëm mënu ma ko may. waa léegi demal ba suba. waa léegi man mënu maa dem ba suba di dugal ma sama xaalis. waa léegi. Oh! waa dem ba xaar dem. saa tee ngaa dem boo bëggee jàmm. tee ngaa dem. di di moom moo ko. saa waay demal. kàddaa ko. déedéet xam nga sàcc na yow yaay sàcc bi. ñu jàpp sàcc yi lan sàcc. nee ñoo ko doon wax. kii moo ko sàcc. bàyyi ma tamit. bàyyi day yem walaay day yem. walaay dama yóbbu walaay. léegi maa ngi dégg ne nga ngeen liggéey. walaay nga walaay nga. tey tey baax tey baax a munoo baax munoo yem waaw allé la. pelle bàyyi moto bi. booy bàyyi leen ma yóbbu moto bi. boo fa nii nii. pelle bàyyi pelle. pelle pelle laaj bi ah eh, pelle bëgg sa bakkan bi pelle. ah da ngay jóg. léegi ma naka boobu ma aywa boobu. li ko buuf ba ci buuf. rek daa rek toog toog rek. dem a booy moto bi peel bàyyi may rey waay man benn saako ñeenti junni laa yor. Hmm. dégg nga dégg laa war cee jënd ma ma ne ma dégg ñu feeraay ma ma jënd ci feeraay ñëw ñoom ñu ñu jaay ma ci ñaari junni. yaa ngi dégg ma jënd ñaar ma jënd ma tudd. dama lay laaj yow yàgg nga ci jaayum feeraay wala yàggoo ci jaayum feeraay. yàggu ma jox dëgg yàlla yàggu ma jox. boo yàggul damay laaj ñi xam feeraay. damaa jóge bawal ñëw damaa jóge bawal ñëw yoruma lu ñeent. waaw dama lay teg ci at tey du ma la nokk damay waxtaan ak yow. man kay loo mën a wax te fexe boo jot sama ñun. déglu ma rek ba ma pare monsieur yi laay wax. Eh, waaw gi ma noq la. waaw yoo xam ne moom gi. sikutóor gi ku ko ma noq la. ah yéen ah, laa wax bu ma noq la. déglu ma dama lay ci at. xam nga histoire bu bëri gi baaxul ci yow. da dafa dëgër bopp dafa dëgër eh, bopp. man du affaire dëgër bopp. defal sama sama sama last price ngeen jël. sama ngeen ñeenti junni yooyu gëj na waa ndëkk lépp lépp rek laa nekk fii. duuna ay kéemaane. koo ci dajale ci mbedd mi ci ñoom ñaar non non bu ma waxoon. saa dama ma indi seen kër gi. jël sama xaalis ba pare doo jël sama xaalis par di ma saaga. dama lay wax rek doo doo jël sama xaalis par di ma saaga dama lay wax rek. nok naa ko taxawal xam nga lan laa bëgg. waaw koo ci dajale ci mbedd mi. nok ko ba mu bugg a dee sama yoon nekkul ci mbedd mi man kër gi laa res ñi am jàmm tey maag yow ma wootee jàmm ak ambiance. bu xool bu bu teg ñëw. waaw néew ma woon si ku tey jii bu ko laal te joxuma la ci. ça va dama dimbali ngir yàlla ak yonent bi nga jox ma moto bi mu bàyyil ba suba nga xam ne maag yow. fi mu dugal daal. waaw ah, dama rek sa yoon néew sàcc mu mag nga. waaw maa tey. Ah, yow xam nga ne sama amoo fula amoo fere ñàkk fay di xale bu ndaw bu toll yow xale bu ndaw bu toll yow yow paa bu tey nii yow yow juge fi waay tamit amoo fay juge fi waay nga def ak sa tunku xëy gi amoo la waay waay waay du du sa sa jeej tuub sa jeej sa jeej tuub sim amoo jëm tuuf yooyu tuuf yooyu dangaa sàcce waay yow sàcce xajo kun doom la ñam na de doolu ma ko waaye lay naa ko tuflit léegi nag xam nga la làbbu. ñëpp di booy di booy eh, boo fi eh, yëngu affaire fee. duul eh. lu fi sañ yaa ko sañ yaa gën a kat soxoon ñëpp. boo fa maa sa pantalon. noppil nga naan ma maa sa pantalon. boo fa ne ko mu ñaar. reer gi laa wax tey anamu. leeru la. boo avancé waatee ma kat soxoon yow bu baax ah, boo avancé tey sa kaw fanaan buñ tëddee damay tëdd sa kaw kaay taxaw bi eh ana reer gi. may li jaay fii suuf.

moo fa maa ngi koy xoj saa ba naa ne bu bu sa dóor bi mu ñaale yow xam nga ku kaf na dégg nga yow ku ku la am bañ xam nga xaw da ngaa jëm ci bañ a xaw baal waaw xëjoo ngay tàppe laa bu tàppe daaw leen tuuti ah boo ko alee rek day taxawaat waaw lii dafay bañ a dem ah kay daal da kaa taxaw foofu nekkoon nekkoon boobu doo ko dóoral dóor ah lii ma ma ne ma de. boo fi li ngeen di def yéex na de. boo ma ne koy fay ba pare di ko liggéeyaloo muy damay damay lakal ñu dàqal ma dàq ma nokk la. lan loolu loolu juróom nga ci ku ma dàq. damay dem waaye dama leen di ko ci mbedd bi leen nokk chaque jour. yéenay xool lu leen ci ginnaaw. saa yow da ngay liggéey. ñu rajo ba faaw. ñëpp leen seen xol puus bi. waaw da ngay bàyyi saaga yi nag. eh duul. eh waaw ñëpp a sa ba àll. sa bàyyi saaga yi. ma ne la bàyyi la sax ma la mba ba ba ba la ma la.